kii nii ngay niroo billaahi wallaahi man kii laay nirool non malheureusement niroowu ma kii man au moins aw na am naa tuuti yaram en plus kii dafa njool te man damaa gàtt walla damaa gàtt tay du bay gàttu ma njoolu ma comme le dit Pawlish Mbaye <laughs> mais yow moom kii ngay nirool alors gars nous ñu ngi leen di bu merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et émission hip hop. 221 yee tey nag euh, dañu déplacé wu tey dañu génn mbuur en ñëw ba fi nga xamante ne nii moo di warang et buñ nee warang ñun ñëpp automatiquement suñu xel day dem ci benn jeune benn euh, artiste bu am talent bu gëm boppam mën lu muy def et il se nomme tout simplement Amdy Moustapha tey dañoo seesi Amdy Moustapha pour waxtaan ak moom ci lu bari ses projet à venir sa carrière et récemment boo leen xoolee moom moo jël meilleur artiste chanteur bu waa Mbour Elite Awards organisé woon donc Big du ñu def lu dul nga topp ma ma xooli Amdy Moustapha waxtaan ak moom

di béggee aussi sa caméraman euh, sama bro sama frère Paate di siyaar waa Warang yëpp ah commune bu Malicounda département de Mbour voilà maa ngi siyaar Sénégal yëpp macha allah. macha allah am de tey dama la fekk si sa dëkk. au lieu que a wan ma ni nga may ma tuuti chance sax sama seng sa génn am di nga ñëw daaneel ma am di man pare naa dootuma fi ñëw comme que su ma ñëwee danga may daaneel ci seng. saa yow danga ma daaneel ba pare nag. bu su ma laa daaneel nangul. <laughs> yaay booy. daanal nga ma ba pare nag xoolal bul fi andi yeneen affaire. <laughs> am di daanalu ma nag alors di la jaajëfal bu baax a baax ça fait plaisir de discuter avec euh, ak yow ci lu bëree bëri kan mooy Amdy Moustapha réellement kii Amdy Moustapha. waaw Amdy Moustapha mooy euh, un jeune talent bi nga xamante ne nii euh, mooy dëkk fi Warang souvent ñu koy wax l'enfant série da Warang. Mhm. xam nga commencé woon musique en en deux mille deux mille deux mille quinze deux mille seize comme ça mhm. xam nga. nekkoon fi ndeysaan di suivre samay grand frère ay ay xaadim nice idée mu jàngal ma lu bëree bëree bëree bëri ci musique tette ma ay le grand maam ji rasoul ay Akhlou Brick Paradise ah, di seetaan ay émission musique di leen topp na fépp fu ñu mënti dem xam nga ay seen i concert man seen fans laa woon en fait di leen suivre di leen seetaan et tout ba dem ba benn moment xëy na ma sentir na loolu moo ngi ci man ndax comme ni ma koy waxee toujours man Jëli Ba yaate bu Gambie ki nga xam ne mooy ambassadeur u Gambie comme tey nga ne Youssou Ndour Sénégal kooku mooy ambassadeur u Gambie moom sama maam la. xam nga moom sama maam moo doon woy ndeysaan moom gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Penda Koyaate moo doon woy jëlibaa di xalam kon donc je me disais que ne loolu ci man la nekk lu doon yeew nelaw la ci man ma yee ko mu jog en fait ma exploité ko quoi. voilà bon commencé woon nag à ca en 2016 2017 comme sa Joko gënné eh, sama premier single intitulé béykat bi ma défon ko Khadim Nice idée mom mom ma yobu studio pare ci lolu ma nek mm, di génne ay single di génne ay single ba ben moment un jour ma génne ben single ak Jaman Express way am di Moustapha Jaman bi Layla pare ci lolu nekkat ci di def ay single ba Uzur jour ma wat benen single ak eh, le grand Edmo Flow xam nga ba dem ba def lu bëree bëree bëree bëree ci musique Mbour ci musique Sénégal quoi en fait ci showbizu Sénégal aha ci showbizu Sénégal kon mën nañ ni don la boo xamante ne yàlla suñu borom moo la ko may am de ci sa biir wax ne nga 2016 2017 nga commencé sa carrière ba nga commencé ak léegi on peut bien dire que ni yàgg na parce que 2016 2017 ba 2022 ah, ça a duré du benn fan du ñaari fan du ñetti fan du benn at tamit du te du ñaari at euh, ba nga commencé sa carrière ba léegi ñaata son nga jot a amagum ak ñaata projet nga génne génneegum. vraiment bëri na quoi man nag lu ci ëpp ay single laa doon génnee parce que dama doon wax que ne single yooyu may génnee rek moom ma doon may li may bëgg quoi en fait tey Sénégal dafa moment boobu noonu boo xool technologie moo ngi commencé am doole. te am na noo doon génne ay ay ay ay ay album wala ay mixtape du jar quoi comme yow noo ko noo ko moo noo ko bëggee noo ko sentiree du am donc yow ay single ngay génne single di génne di def bëm gars di la invité ci concert yi. xëy na di la fay kase yu baax bon nga exploité loolu quoi en fait comprendre nga. bon moment boobu man nag bokkoon naa ci benn compétition bu ñuy wax Mélomane Team compétition bi nga xamante ne ni national la woon hip hop mbuur compétition bi nga xamante ne boobu rek laa mas a gis ñu def gars yi def poule A poule B yàlla def ma demoon ci final man ak Carapit ak benn groupe bu tudd Black Squad bu nekkoon Ziguinchor yàlla def ma génn deuxième on était des millions de groupes. yàlla def ma dem ci ba final comprendre nga mais produit yu ma génnee mën naa ne single yu ma génnee bëri na de telle sorte que mënuma laa woo jàppatuma ko daal am na si yenn son yi nga xam ne sax damay dem euh, concert gars yi du ma ko laaj mais damay miime rek quoi du ma ko sax mën a jouer ndax may fàtte paroles yi ko en fait waaw. waaw donc daal bu ñu comprendre ba nga commencé sa carrière rek léegi euh, productif productif nga fi loo xamante ne nii am nga sound yu bëri am nga projet yu bëri yoo xamante ni des fois sax da nga koy alors ba tey ci émission hip hop 221 ah mu il est là Amdy Moustapha l'homme de Warang Amdy euh, est-ce que da nga signé ci benn studio de production musicale wala da nga libre parce que man ay temps déggoon naa fi ñu ne da nga signé euh, Didi Record dëgg la wala du no non non loolu amul loolu amul avant avant sax may ñëw ci question bi damay wax ko ni aussi def naa benn mistake. def naa benn mistake bi nga xamante ne ni liggéey naa si sax ak yow di la ci remercier bu baax a baax a baax a baax parce que am na benn son bi nga xam ne maag Vito Buzz Lab ñoo ko def daanaka ba affaire yi tare yow laa ko jox yow yaa ko publier si sa seen et tout. comprendre nga à part loolu aussi def naa ci benn featuring ak OMG xam nga son bu nice ñu wëy si les enfants de la rue les talibés mais damay ñëw si sa kii bi parce que boo ne OMG rek. comme ça yaa ñëw di di record mais di di record si ñëwuma fa mais mën naa ne ca kër ga laa bokk ndax ñooñu tey OMG chaque fois sama yaay laa koy wax li ci mel ni bii bët nekk jëkkëram di ko saluer de passage kooku moom sama grand la sama lépp la vraiment dama fay dem di job comprendre nga moom bu ama amee soxla ci man fii nii mbuur lépp lu fi bëgg mbuur man lay woo ma lijjante ko man tamit su ma amee soxla studio et tout te man studio am laa sentir damay dem fay comme ñëpp damay fay sama xaalis mu joobal ma lu nice comme ñëpp comprendre nga mais gars yi dañuy wax loolu ko mais si ñëw ma fa man maay produire sama bopp man xëy na sax sama carrière buñ ne dafa tardé wala benn affaire parce que man sentiru ma ne non sama carrière dafa tardé parce que fu ñuy dégg nit ñi ñoo ngi ma fay en fait donc euh, suñ ne sama carrière benn moment am na benn tardement bu ndaw ci man la parce que man maay produire sama bopp. man dew ma ci labelu kenn di topp seen ginnaaw wala ci kenn nii nii non non am naa ci nag amoon naa ci ay label yu bëree bëree bëri yi nga xamante ne ni pare woon nañ pour jël ma mais man dama jàpp sama sama production maanaam li ma mën a produir ak fi ma toll keneen mënu ma ko jox quoi foog benn label bu am doole bi nga na ne leer ma ne label bii nii mën na ñoo juboo ci ay kàddu comprendre nga te aussi samay image wala samay son samay qualité son samay qualité mu soxla mën naa ko am ci moom ma dem comprendre nga en même temps ñu signé ci ay kàddu yi leer nañ comprendre nga mais xaw ma ay soroxo soroxo ma toog joobal sama bopp moo ma gënal lëpp quoi parce que man tamit dama am famille te sama famille dañoo yaakaar ci man voilà. voilà dafa am famille et famille wam dañoo yaakaar ci moom moom nee na doxul ci ay coroxo coroxo kon leer na Amdy Moustapha nee na signé wul biir Didi Record mais Amdy Moustapha bëgg nañ xam ndax yow rap ngay def wala lax ngay def parce que am di au début da nga doon gis ngay rap naay si teg lu dëgër mais ñu dem ba benn instant gisatuñ la nga rap lu xew. man damay musique loolu laa la loolu du ci jóg damay musique quoi comprendre nga. parce que Sénégal dañoo dem ba benn moment ndeysaan maa ngi ci doon déggante ak sam benn grand di ko salio de pas bu baax de de passage dañoo dem ba benn moment nekkatuñ ci monde que kii de non bàyyi na rab reggae lay def kii bàyyi na reggae rap lay def wala kii arène bi lay def wala kii lee lee lee lay def doon noo tey boo demee Dakar sax dañ lay wax ne gars yi évo évo maanaam dundatuñ ci monde boobu tey boo demee lu ci mel ni waali Seck dem ba États-Unis di jàng musique comprendre nga kon kooku gis ko ne moo ngi xaw a rocceeku tuuti temps yi ci mbalax mi di dugg ci afro comprendre nga parce que xoolal joge na Sénégal xam na ne fii mbalax mi moo fi nekk dem na États-Unis pour rooti leneen comprendre nga tey man tam bu ma amee moyen yooyu noonu mu am tey man tam damay dem États-Unis wala man ma dem lu ci mel ni France ma dem rooti leneen parce que damay musique quoi en fait comprendre nga tey bu ñu ma tegalee bitu mbalax am naa talent boo ma mbalax ma dem ci boo ma tegalee afro mbalax ma dem ci boo ma tegalee arène bi dama ciy dem boo ma tegalee rab damay rap mën naa xëy génne benn sangunu rap su ma ko sentiree quoi mais moment bi ñu toll fans yu ma am yu bëree bëree bëri ci musique laa leen amee vraiment waaw noonu la demee quoi te moo ko bàyyi de. noonu la demee am di nee nga mën nga rab am di rap dóoral ñu benn freestyle ñu xool. ma dóoral benn freestyle. bu tàng jër. bisimilah ma jiite Dakar ba fim laa santati laa jox na ma ne Moustapha fis do fuloo ki jiitu yoo de xam nga may joxe ndigal comme Bamba borom tuuba man damay rap damay raak damay mbëkkante de. waa ñun bu ñu mbëkk dee bul mbëkk paate paate am am am eh, paate am di menacé na la de nee na la yee eh, man dama <laughs> waa leer na yéen ñu doon laaj ndax am di Moustapha mën na rap wala mënu rap. ah lii moom leer na lii moom leer na naañ mais am na nan nga gisee affaire yi la fekk gars yi naan instant bi rabu wow bi doxatul euh, rabu wow bi fayul rabu nooy bi mooy fay nan nga gisee loolu. parce que daa amul xaalis. <laughs> comprendre foo teg ne rabu wow bi amul xaalis. dama lay jox benn exemple. man ak yow ñoo nekkoon doon ci concert u Pakora One Boy. ñaaxaar. Mhm. gars yi ñëw nañ yéeg. Mhm. wax waxa waxa wax ego ego ego tagg seen bopp ba sonn kenn faalewu leen. am de Moussa Fall rek mo yek ziar rek bege borom kan gi public bi yeb jog am det <laughs> fala la fek de wa ma ñëwee ne ziar rek bege borom kan gi am di Moustapha jaman public bi yeb jog am det te pourtant rapport ñew nañ yek raba raba raba affaire bi na met am di am di bàyyil tooñ alors dañuy continuer ba tey am di gis naa ni temps yi ci ginnaaw génnee nga benn it boo xamante ne ni euh, c'est intitulé Layla nekk featuring ak euh, artiste bi di ki nga xamante ne ni moo di Jahman euh, X-Press bien sûr featuring bi nan la fa demee da ngaa fay pour am featuring bi wala feeling la ñëwee. non fayuma pour am featuring man duma def loolu. waaw non duma def loolu parce que featuring talent la rek talent lay laaj su ma amee benn groupe bu ne am di damaa bëgg a def ak yow featuring dinaa xool li nga man balaa may def ak yow featuring damay dugg sa compte YouTube xool li nga génnee projet yi nga génne xool li nga man bu fekkee si yow sa talent permettre na ma ma def ak yow featuring dama koy def mais du ma dem fekk ki nga xamante ne ni manul comprendre nga wala kiyul may def ak moom featuring quoi parce que xëy na fi ma tolloon après sama niveau day wàcc waat parce que loolu du dem fenn comprendre nga su may def featuring damay dem gëstu xool artistes yu mag yi ay jaamaan ay Edmo Flow gars yi nga xam ne damay woyi ñoom tamit ñuy woy comprendre nga ma def ak ñoom featuring fayuma leen benn yoon du kenn ki nga xamante ne ni vraiment jox naa la xaalis fayu ma leen woo naa leen ñëw nañ studio joob nañ def nañ li ñuy def nice waaw mais fayuma ci kenn vraiment. waaw alors loolu leer na am Amdy Moustapha nee na fayu ci kenn mais Amdy après featuring bi. clip clip bi euh, ba nga koy tourné lan moo tax Jahman Express parti participer wu ci lan moo tax Jahman parti participer wu ci yow doo nga yaa feeñ ci clip bi en fait en plus euh, du ñu yem foofu ma gisaat nga génn di kaas ci internet bi naan Queen Biz de la plagia dafa sàcc sa sound te euh, man je me dis ni Queen Biz benn quatre mesures rek la ci la ci laal et je pense que rek man boog.

ba sama dëkk di ma poser ay question pour man dama war a répondre rek quoi mais loolu passé na jaamaan sama xarit la jaamaan man dama ko bëgg sama xol comprendre nga sa ay sonam rek laay déglu man jaamaan rek moo mën a tukkiloo quoi benn instant des fois damay woy sax gars yi ne sama voix daan roog voix jaamaan comprendre nga dañoo defoon featuring bi mu demee noonu xëy na noonu la waroon demee mais jaamaan moom tourné woon nañ clip comme li nga wax noonu non jaamaan tourné woon nañ kilip waaye lieu yuñ tourné du benn boo xool clip bi fii laa ko tourné ci biir fii comprendre nga sama gaale bi fii laa ko tourné boobu nekk guma fi sax woon quoi boobu dama dama ko luwee woon sax dama luwee woon gaale bi fay sama xaalis ñëw tourné si clip bi mais après ba ma woowee jaamaan boobu daf mën a wax amul jot affaire yooyu presque xëy na tamit amul woon jot et tout xam nga mais toog naa xaar ko xaar ko ba deux mois yi nga xamante ay un mois deux mois yooyu noonu may soog a tourné bi après après bon si la ma woo studio ñu dem studio nu tourné fa mais waa ji ba mu ñu tourné la ba ba ndane moom bu monté li mu séquence yi mu jël jaamaan ci studio ba fële monté ko ci ay séquence su kër loolu àndul comprendre te loolu noonu bu ko defee job bu cuuna lay def te jaamaan man ba ñu tourné clip bi premier moment wantit la ma proposé woon wantit li ma laajoon daa seer te foofu la taxawoon vraiment wantit xaalis bu bëri li ma la ma laajoon dama ko koy nangul nag ndax aussi loolu joobam la di ko saluer aussi mais li ma laajoon dafa seer loolu mënu ma ko woon a fay sama samay moyens yeggul woon foofu noonu mhm. après bon ci laa dem woo sam benn copain Mamour Biggi si la ñëw ma ma arrangé ak moom ak li ma am comprendre nga ma jox ko mu defal ma pourtant moom tamit am na ay image yu mool tournel na ma clip bu nice mais li mu jël li mu jël li mu jël kii bi si si kii nu mu tudd loolu noonu moo tax kii yu ñu quoi li mu jël image si studio ba moo tax monté wuñ ko aussi quatre mesures yi ngay dégg man dama jàpp ne man dama ne j'ai bien précisé dama ne c'est pas professionnel Diamane Express woy benn couplet mu am ci benn quatre ou cinq mesures bi nga xam ne way na ko si sama son dem di ko joxaat Queen Biz man loolu ba suba ba Diamane bu taxawoon dama koy wax ndax aussi man loolu laa jàpp ndax bu dee damaa dem ba def ak jaamaan featuring jaamaan nga xam ne moom moom la sénégalais yi gën a xam ka man ma def ak moom si featuring pour moom ay public am xam ma waaye pour samay public aussi gën ko xam comprendre nga après loolu demagul fenn génn na moo ngi def benn bruit demagul maanaam jo euh, passegul comme ni mu jàllagul comme ni mu war a jàllee mu jëlaat ma mesure yooyu noonu di ko jox ay Queen Biz bon loolu noonu daf may raylu même bu dee moom moo ko bind son bi idée bi sama idée la man moom titre bi bit bi man maa ko andi boos xat xol cees moom moo tëgg bit bi moo ma ko jox man maa ko andi même bu fekkee ne moom moo ko bind c'est pas professionnel man foofu rek laa doon waxee mais leneen li yëpp aw ma ci problème te métti na si xol aussi nañu wante dëgg rek nga def sa sound mu génn même pas un mois Queen Biz ñëw woy li nga woyaatoon gaayen après da ngay dem man dem naa fenn fi nga dama kaa joué ñu ne ma sawaay yow xanaa da ngaa déglu Queen Biz. ne fekk na loolu man la après loolu da lay métti kenn saa bu doon yow la. waaw waaw waaw loolu moom am na. waaw loolu yow daal wax ji wax ji loolu dong moo la ci metti eh, voilà man loolu moo ma ci metti en fait comprendre ma génn di wax après gars yi di kii. Mhm. te pourquoi pourquoi ma génn di wax sax boo xool animatrice yi. Mhm. ah ak animateur yi ñoo ko seetlu ñoom ñoo seetlu affaire boobu noonu. Mhm. man affaire bi génnuma ci ni jékki saay di wax nii de gars yi dañ ko seetlu ba pare soog ma invité. man tam ma ñëw wax si dem naa sax ba ay tele ay tunkara gaa yu bëri invité ma ci mais dew ma mu ma dem ndeysaan am saar jaar ci boppam woo na ma ne ma ne ma ne ma dégg naa da ngay dem ci émission tunkara barki alxuraan mais après dama mujjee bàyyi quoi ne garaawul te loolu noonu Kenza moom pour te dire vrai bis ni ki tey dootuma ci waxati waaw loolu moom bis ni ki tey jii dootuma ci wax. kon dee na man man maay dernière personne boo ci wax. waaw billaay yow yaay dernière personne bu ma ciy waxal. ah kon kon kon baax na man maa dernière personne bu mu ci waxal am di Moustapha à part loolu yan link nga am ak rappeur Mbour waay. waaw waaw waaw bëri nañ bëri nañ samay gaañ lañ. Mhm. samay gaañ lañ. waa vraiment am naa ñoom link bu nice sa nice sa nice aw ma ci kenn problème vraiment des fois nag du ñàkk ay gars yi di bind ay son di la kii mais loolu noonu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi te day neexal musique bi day neexal showbiz bi quoi mais samay xarit lañ. samay lépp lañ quoi vraiment. Mhm. alors euh, moom ak rappeur Mbour waaye ay xarit lañ ay gaayen lañ comme euh, comme ñëpp am na Moustapha am na lu ma dégg de dégg naa temps yi da ngay waaj a génnee benn sound pour clash ci euh, Mr Cash parce que da koy kóol du jël ba pare nga naan dafa yëg succès loolu dëgg la loolu du dëgg ana sound bi yaa ngi koy waajal wala. no non non non non waxuma ne damay génnee sound. man dama koo dégg laa la wax. non sama gaayen la de. Ah. waaw Kenza Cash sama xarit la barke yaa Rasulaay dama ne. damaa gagné trophée ma ne comme que sama gaañ la naa ko woo téléphone wax ko ko si le faut sax moom bu nekkee mbuur ma yóbbul ko trophée bi après ma koy woo jolul ma woo ko ba sonn jëlu ma kóol bi di sone des fois mu coupé ma te daanu ma woon coupé daf ma doon des fois sax moom moo ma doon woo da doon toog di ma woo comme ni ma ñëpp di woowee comprendre nga ma woo ko jëlu ma ma woo ko ma comme aw ma nag fu ma ko ko waxee. keroog may def émission ma wax ko fa mais waxuma ko pour classe ko waxuma ko pour pic ko man manuma sax classaate man duma ma classe manuma loolu quoi xam nga gars yi li ñuy def ni di ego man manuma loolu mën naa ko binde nag rap mais manuma ko parce que man daa am benn public bu may déglu en fait te man damay jàngale damay yeete nekkuma fii di classe kenn comprendre nga dama ne ke sama frère la am naa droit aw ma fenn fi nga xamante ne mën naa ko wax li ma métti am naa droit bu ñu ma tiimee caméra ma wax ko pour moom bu ma déggee mu xam na kat am di métti na li affaire métti na am di si le faut sax moom mu jël kóolam woo ma expliqué ma lii la ak lii ak lii mais waxuma ko pour classe ko waxuma ko pour pour moom lu ko métti waxuma ko aussi pour ut buzz kees sama gain la kees man maa ko njëkk wax concert ak lu Brick Paradise maa moom ñëw fa njëkkee ci rappeurs yi billaahi concert bi amoon 2019 euh, je pense bien bi waa DTV ñëwoon def ko en direct man a kees ñoo fa njëkkee ñu toog mu ne ma bro maa ngi lay bëggee yaay am di Moustapha ma ne ko waa mu ne ma maa ngi lay bëggee damay dégg damay gis naa job bi moo ngi naaj boobu man xamaguma ko dégloo guma ko kees yëg si kaw seen joué wàcc ba mu wàccee ma ne ko bro di nga toj Sénégal barki yaar suulaay ma ne ko li ngay rab dafa toog barki yaar sulaayam aw ma xolu benn xolu kiñaante si moom te kalaasuma ko kalaasuma ko piguma ko dama am lu ma métti aw ma fu ma ko koy waxee ma wax ko ko parce que boo gisee mu métti ma dama woote benn copain décroché ma ba mu ma décroché mu ne ma noo yow sa numéro feeñul fii feeñul si téléphone bi te man may gis esthétique loolu mooy lan. genre day mel ni sa tour enregistré wuñu ko en fait. nañ ko bien sûr que enregistré nañ ko mais maanaam man dama jàpp ne moom moo ma jëlul woon ko en fait. mais kon lan moo tax grand bi ne la sa sa sa sa sa tur feeñul ci ci appel bi. parce que dama gis STM léegi nii même pas une minute ma woo ko téléphone. maanaam kees dama gis STM même pas une minute ma woo ko téléphone ba ma ko woowee keneen moo décroché ne ma kees daa génn xam nga ma ne ko ah mu ne ma waa ma ne ko ah kees da maa ngi koy jotuma mu ne ma mu ma kees daa génn quoi ma ne ko waa bu ñëwee nga ne ko am di Moustapha doon na la woo xëy na moom sax dina ko gis waa ji ne ma noo yow sa tur sax nekkul si téléphone bi numéro bi kese laa gis nii. Mhm. ma ko ah mu ne ma ma ne ko ah kon baax na après si looloo tax ma waxee nii mais du pour dara ah. non kenn sama xarit la te maa ngi koy souhaiter bon vent. Mhm. très euh, un très bon vent vraiment sama gain la. sama lépp la billahi mhm. alors affaire yi leer j'espère que la réponse a été très bien claire de ngeen li Amdy Moustapha wa mais Amdy Moustapha dañu ñëw ci li nga xamante ne ni moo trophée yi génneel trophée yi Amdy génneel ñu trophée yi ñu gis ni euh, temps yi da nga euh, trophée boo xamante ne ni waa Mbour Elite Awards euh, ñoo la ko jox parce que ñoom ñoo ko organisé woon doon sargal doomu Mbour yi nga xamante ni dañu def liggéey bu remarquable ci biir année 2021 bi mais am di bëgg nañ xam yow lan nga def ci biir année 2021 bi ba gaay yi jox la trophée bi danga am projet bi nga génne wala da nga génnee da gën a productif ci biir année bi wala danga tëgg concert boo xamante ne ni dafa assuré dafa carré ba ñu boole la ci sélection yi jox la trophée bi bëgg nañ ba expliqué ñu. bañ jógee bañ duggee si 2019 ci la programme def sama def sama concert concert bi ma doon def chaque at après bañ jógee si 2020 ma programme ko dem ba ba benn moment bañ nekk concert bee ngi waaj a aboutir man ak Fou Malade ñu war ko woon a def fii nii warang dem ba concert bi war a am Covid bi ñëw Covid bi ba mu ñëwee. ñu ne mënatuñoo rassembler ay nit concert bi amatul comme concert bi amatul si laa dem programme génne benn mixtape génne benn mixtape bu sept titres comprendre nga te instant boobu Covid bee ngi tar gars di def ay confinement amul génn amul dem fenn comprendre nga ñu dem tëju lu ñu tëju yëpp man maa ngi programmer di def sama mixtape comprendre nga. ma def sama mistake set titre def ci featuring ak OMG def ci featuring ak Vito def ci xaalis bu beuri nak comprendre nga kon man na na 2021 bi. <laughs> ki mo suñu star ñun mom rek lañ am. Ah, kay wax ci ñewal wax. mané ki moy suñu star ñun mom rek la am ki Mustafa, Amdi Moustapha boko déggé lu mu ciy toftal moy from warang ñun ñep from warang lañ mais moom moo génnee slogan bobu dañ koy big up di ko shout out di ko ñaanal fi mu jëm. mu gën a yokk ba mu yëg ko barki maam Cheikh Fall jaajëf c'est le meilleur artiste du département incontestable bëgg a ah. am am am am am di star nga waa non non mais mais mais man xam naa ne nga waa damay damay sant yàlla waa sant yàlla si la damay sant yàlla après ba ma génnee mixtape bi ne mixtape bi nag si laa doxal comprendre nga daanaka man moment boobu mën naa ne man kese maa fi génne Mixtape département de Mbour comprendre nga bañ tijjiwaatee affaire yi ci laa gis le grand Mixtape def génne Mixtape comprendre nga kon man naa ne bu fekkee ci loolu lañ koy xool man maa gën a pro productif nga mais gars yi xooluñu yemuñu ci loolu kese. dañoo dugg sama biographie xool li ma liggéey xool sama compte YouTube nga xool li ma liggéey A ba Z émission yi ma def. fi ma représenté Mbour département de Mbour fi warang xam nga gaay yi après bon man man balaa la ta dem ah, ci kéro ba def remise de trophée bi la ne man ñi ñuy sélectionné jaaxaluñ ma quoi en fait bu féké ñi rek la barki yar ma len duma né ma len man mais man ma len gëna produire parce que ay ndanan ñongi ci am di am di am di dogguma la euh, ba tey ci côté productif euh, man gis na ni pourtant euh, bu dee productif Mr Cash bokku na ci artistes yi gëna a productif ci bi ci ci biir année 2021 bi parce que def na lu reuy ci gain en fait du mom kese mo moo fi def lu reuy sax même Blm Pro balen xolé def na job bu nice mu ngi génn di wane talent am di participer ci ay compétition di finalu et tout té tamit ñu ngi ñu ngi di def ay featuring di def ay featuring di def ay concert et tout bañ la choisir ci yan charte lañ ko teg bëgg naa xam ci yan charte lañ ko teg en plus di leen jaajëfal bu baax a baax waa Mbour Elite Awards vraiment job bi nice na te gis nañu tamit yombul. waaw boo bon li may wax rek mooy que ah, Kenza gis nga lii xëy na dafa bokkoon sama dund quoi ma war ko am te bu ma ko amee rek kenn mënu si dara te jox nañ ma ko ba pare xam nga am di lañ ci def am di Moustapha def sama photo jox nañ ma ko ba pare ñi ko organisé daanaka xaw ma leen Zal laa ci xam Zal Touré te Zal billaay wallaay taalaay man maa ne ko Zal am na benn euh, femme benn gel bu nekk Mbour Kenza Kenza 221 moo ngi représenté Mbour moo ngi def ay émission yu nice est-ce que sax doo leen ko jël boobu barki yaar sulaay man liñ ma ne woon rek man dama jàppoon ne nice man dañ ma génnee comme meilleur artiste commune bu Malicounda est c'est normal commune malikunda yëpp ah do amdi Moustapha kessa mo fi ne waye amdi Moustapha lañ gëna xam comprendre nga est c'est normal ñu génnee ma comme meilleur artiste commune bu Malicounda mu dess nak jongante meilleur artiste département de Mbour comprendre nga ma lol nonu duma ci mëna sori parce que ñom xeyna ñom ñoñu rek ñoo la wax mais xam la lañ question bi lan la ah pourquoi meilleur artiste Euh, nan la ñu mën a nominer wala nan lañu ñu nominer meilleur artiste département de Mbour muy Mister Dev ak Sacha sa question loolu la war a doon mais pour man ma jël lii ah. pour man non non man dama leen ne ci yan charte lañ ko teg en waa moom laa la mooy que maanaam sa ñoom man man bokk ci li xam man ba may envoyé sama biographie ah ñoom ñu dugg sama compte YouTube xool sama biographie bi ma leen envoyé parce que man lépp lu may liggéey dama koy bind dama koy teg. comprendre nga ñu xool sama biographie dugg sama compte YouTube dugg sama lépp man ah ba ma gisee tamit artis yu ma ko sekkal dama ne lii sama trofe la war a doon en fait comprendre nga dama jàpp ne lii sama trofe la war a doon parce que liggéey naa li war a tax ma am trophée bi liggéey naa li war a tax ma am lu ëpp lii barki yaar suulaay ma loolu laa gëm ko en fait loolu la quoi waaw mais mais ay sart yu ñu tegoog yooyu vraiment man boog man loolu laa jàpp dañoo dugg sama compte YouTube ñu woo ma ne ma envoyé ñu sa biographie ma envoyé leen sama biographie lépp lu ma jot a job muy 2021 ak leneen la ca topp ah ñu nominé ma mais lu ci mel ni Mister Cash Belem Pulo ay ndaanaan nañ dama leen koy nangul ñoo ngi représenté Mbour fépp ci àdduna bi lu ci mel ni sax Mister Cash tey moo fi génnee wéree di àdduna bi yëpp jot si xam nga loolu dama ko se woo ma félicité ko man ak moom waxtaan nañ nii nice ma félicité ko ci loolu noonu Belem Polo grand bi la may wax sama copain la moo woowee daf ma naan grand bi maa ngi lay bégee ñu waxtaan coupé comprendre nga dama leen di souhaiter bon vent ba pare di leen féliciter ci job biñ nekk di def ci département de Mbour mais yow tamit di la féliciter bu baax a baax ah, parce que ku gis lii xam ni da ngaa liggéey. Euh, liggéey liggéey moo la ko jox. balaa maa man man am naa benn conseil pour ñoom pour ñu gën a ñëwaat booru mbuur quoi parce que xëy na seen job foofu des na tey mën naa ne département de mbuur am di lañ gën a xam ni ki Mister Cash est que comprendre fi may waxee man loolu conseil bu ma leen di jox rek ñu bañ a dem toog Dakar rek des fa. nañ ñu gën a ñëwaat représente Mbour comme ak lu birik instant yi nu mu ñëwee toog Mbour représente Mbour gars yi tamit nañ def loolu parce que ay élément mbouroise la ay élément mbourois la ñu nañu gën a ñëw toog fii biir Mbour représente mbuur parce que man comme ni ma la ko waxee tey mën naa ne département de Mbour laa waxuma mbuur département de Mbour am di Moustapha lañ gën a xam ni ki ñooñu barki yaar sullaay parce que dama ko fay représente quoi dew ma Dakar toog fa Dakar lu ma fa dem dem dem damay ñibbi waat guddi guddi mbuur. mais am di duñ ci yem ah. parce que tamit gis nañ waa groupe euh, xel bu kenn dégg naan lii nekkatul Mbour Elite Awards mais euh, nañ ko woowee Ruku Awards parce que dañoo dugg seen ruku rek choisir ñu leen neex ne ñoom la mais trophée bi kañ lay génn euh, nga teg nga teg concert ñu feete trophée bi affaire yooyu avant loolu lan nga la li waa comment dire ça. le group xel bu Kendeng wax nan nga gisee loolu yow. bon Kenza boobu moom te nga te nga baal ma ci tuuti rek tontu woon euh, dem naa leelar si parce que ñoom génn nañ wax di leen di leen saluer samay gaañ lañ samay frères samay amis vraiment maa leen di bëggee bu baax wax ji nag bettoon na ma ba toxoon sax ma dem leeral parce que samay gaañ lañ quoi xam ñi nga xam ne fii laa leen def te fii laa leen di def ba tey comprendre nga. et vraiment leeral naa ci wax naa ci dootuma ci waxaat daal. en tout cas mais waxoo ko ci man mais nee nga daa wax bi bett na la en tout cas. waaw waaw non dama ne wax ji bettoon na ma ba tax ma dem ma ton ba tax ma dem ba leeral si tontu si mhm. bugguma cee nekk di si répété waat waaw parce que waaw xam rek. en tout cas tontuwee woo ko sama chaîne. tontu weewoo ko sama chaîne loolu moom leer na. bëgg naa lépp loo ma posé question rek ndeysaan ma tontu si ndax yow man yow dañoo yàgg. non du tey ah, non non non ku ne xam na ni kenn Kenza ak am Amdi Moustapha yàgg na. voilà dañu ñëw ci trophée yi kañ ngay génnee kañ kañ ngay génn teg concert bi ñu féete trophée yi. après après après élection yi di leen ñaanal ñoom politiciens yi seen élection yi ñu nekk nga xam ne dimanche la yàlla na ci yàlla def ndox bu sedd yàlla na jàll ak jaamu ndeysaan képp ku gañe rek ñu xam ne yàlla suñ borom moo ko dogal comme tey ni ma gagné trophée bi yàllaa ko dogal na gars yi nangu rek nañu muñ ba dëwën képp ki nga xam te jël nañ la nominé nañ la yàlla ko jël comprendre nga ay dina élection yi muy APR muy muy yeewi askan bi muy parti bu mu mënti doon rek képp ku ko gagné rek xam ne yàlla suñ borom moo ko dogal yàlla nañ ci dugg ci jàmm jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci jàmm comprendre nga élection yi bu ñu paasee rek incha allah bëgg naa jàpp benn date ci mois de mars bi teg ci benn concert plein air incha bu mag incha allah pour féete lii. ñoo ngi koy xaar incha allah le mois de mars Amdy Moustapha euh, dinañu tegal concert plein bu amul fenn ñu féete trophée yi mais am Amdy clip yu nice yi ngay génne clip yu am qualité yi ngay génne xaalis bi fan la jóge Amdy yow am nga xaalis xam nga da ngay mais yor nga xaalis. waaw ci musique. tey dama la doon bëggoon a wax ne ne tey buñ ne Amdy dafa taare ci benn côté ñaar yooyu kese ñoo ko tardé benn bi mooy ah, man maay produir sam bopp beneen bi mooy ah, man dama bëgg am qualité beneen bi mooy damay liggéey maanaam temps bi temps bu bëri bi du ma ko am mooy que fii ngeen ma fekk tey ah, ma développé bi tuuti douceur d'Afrique nekk benn hôtel chambre d'hôte bi nga xam te am na six chambres man maay man maay assistant gérant bi en même temps di liggéey benn benn benn benn benn complexe culturel bu nekk dakaar bi nga xam ne chaque semaine dinaa ci def euh, ci côté culturel daal laa fay job jarul sax may tudd tur bi mais chaque semaine dina war naa dem foofu trois fois dem joobi comprendre nga en même temps nekk technicien froid et climatisation du business aussi en même temps parce que ma ci musique musique amul xaalis comprendre musique balaa mu lay fay nga yow nga fay ko def ci ba pare. comprendre donc loolu moo taxoon ca njëlbeen ma ne la man foog ma am benn genre benn euh, nu mu tudd label bi nga xamante ne ni attan na sama production maanaam li may def mu ñëw weesu loolu ma xam na ne kii kat weesu na man li may def may soog a nangu wala wala ñu signé lu leer waxtaan signé lu leer a leer a leer may soog a nangu ñu ñu joob di sant yàlla na maay sant yàlla bu baax comprendre nga. moo tax ngay gis clip yi naay si ngay gis son yi am qualité yi may dem jóge fii dakaar di dem ba Didi Record xam ay ay ay ay ay Pac DJ ay Titeuf di ma turnel clip comprendre nga voilà loolu dama siy sant yàlla rek quoi en fait dama siy sant yàlla bu baax a baax a baax. mais Amdy Amdy man ma dégg ñu ne Maguette seen maire Malicounda moo lay financé ci suñu xaalis dëgg la wala dëgg man loolu laa dégg de. nee na si suñu xaalis. <laughs> ah ci suñu xaalis kay <laughs> léegi loolu du suñu <laughs> am nga nit moom lépp li nga xamante ne ni am nga ko am nga ko am nga ko ci sa mhm. ci sa municipalité mhm. loolu yaa ko moom da nga ko war a dem jëli mhm. Maguette seen daf may jàppale ma di ko saluer de passage nekk maire bu baax maire bi nga xamante ne mu ngi ci commune bu Malicounda di def liggéey bu am solo vraiment man saay bu ma bëggee def benn projet dama koy bind projet bu rafet bind ko ci ni ma ko war bindee normalement dem déposer ko bu ñu ko xoolee xam ne ne booy bi kat lii la soxla dañ koy financé dañ ciy jàpp comprendre nga mais à part loolu comme ni ma la ko waxee lu bëri sama poche lay jógee gars yi nag des fois nii nga sol benn caleçon sax ñu ne magasin na ko jënd <laughs> ay mais xëy na loolu ay wax la rek da leen di bàyyi ñu waa rek garaawul. <laughs> am na yan ngay waajal. waaw bon instant bii nii comme comme ni ma koy wax toujours ah yàlla may na ma lii. damay ñaan yàlla dëwën jëlaat ko. Mhm. bu dee bokk naa ci. Mhm. ñaan yàlla dëwoon jëlaat ko rek gën a dóor fas bi mu gën a daw bëgg naa def ay projet ak ay artistes yu mag tey rek am naa ko ma ci dégganteel ndeysaan ah bëgg naa def moom benn featuring bu bu bu kawe benn son bu kawe sax xam nga bëgg naa def aussi temps yi ah, waxtaan naa seeg sama gars yi muy waa Akhlou Brick bëgg naa def ak ñoom benn affaire. en même temps bëgg naa def benn album quoi incha allah bu soobee yàlla. mu ngi waaj lu rëy moom Amdy Moustapha kon euh, ñu ngi koy xaar ak doole mu ngi waaj euh, album mu ngi waaj euh, concert donc daw leen gaaw ngeen abonné nee naa leen Amdy mii. am di am di mi ngeen am di yow saay saay nga de yow <laughs> alors l' émission à sa fin mais balaa boobu am di est ce que mën nga maa wax euh, euh, wala nga expliquer ma sa benn euh, sa sa benn anecdote boo xamante ne dund nga ko ci Gembe offert par exemple nga dem concert war a yéeg ñu ne non am di Moustapha du yéeg affaire yooyu noonu est ce que mës na la arrivé ak nan nga ko dundee. waaw loolu moom loolu moom mës naa ko dund <laughs> bu tar sax boobu. boobu daa amoon benn festival bu mag bu amoon fii. ñu koy wax Kaay Ñaning festival. ndeysaan mag benn bureau bu ñuy wax ah, Brice Dia. Ah, am sama benn nijaay sama nijaay la de <laughs> boobu ñun ñoo ngi soo génnee suñuy première son ay taalibe affaire yooyu. sam nijaay bi jox ñu 400 flyers 400 flyers. comprendre nga. daf ngeen <laughs> billaahi ay affiche mu ne ñu da ngeen di dóor. te boobu daara ji famille moo ñëwoon ay waa safari. ay Papa Ndiaye coppet artistes yu mag festival bi day fees mu ne yéenay def première parti bi yéen tafal leen ñu affiche yi rek séddale ñu flyers am benn conseil bu amoon sant su ah oto amul woon ñu dox ba sant su mbuur fii fii nii ba sant su dox dem séddale quatre cent flyers yëpp taf affiche yi concert ba jot dóoruñu seen <laughs> jaay bi da leen a nax am di <laughs> xanaa temps ay xale woon xelu xale ngeen yoroon <laughs> ma ñëwee si di jooy sama nekk laa tëdd ci nga taf li li nga dox li nga dox euh, warang ba sant su te flyers yi 400 flyers te yéegoo yow looloo la métti. billaay dama kaa jooy ba fajar laa la wax <laughs> fajar teel. ba feebaroo wala boobu buy métti rayu la. maanaam dem ci dem ci benn festival toog première partie ba jàll Papa Ndiaye coppet yéeg. safari yeeg nga naan waaw. nga doon dundee espoir. waaw toog rek naan di gën a kii di seetaan gaay na waay. des fois nga dem ci di bi ndax kale luñ ma. des fois nga xoolal jékki saay gerte sa xool public bi nu mu bëree sa fit bi naan tëf tëf ndax yow da ngay dóor ba ñu naan xoolal. affaire yi tas na kiñ ko kiñ ko parrainé moo ngi wax affaire ya tas gaay di ñibbi par benn benn. non mais yaayee jooy nag am. si jaa bi ma àndaloon ma gëstu gisatuma ko ma jóg dem ñibbi. moom na xam naa bu yàgg. bu yàgg moom xam na xam na li muy xam bu yàgg xam na na duñ dóor ma dem na te xoolal ñibbisi bi nag damaa dox yoon bi de. <laughs> am di yow dese woon tëstan yow pour taf 400 flyers da nga doxee warang ba santusu concert ba tamit même chose da nga doxee foofu ba fii. billaay walaay taalaay mais loolu noonu après nice quoi billaahi parce que dañuy naan sa démb mooy defar sa tay quoi en fait loolu noonu li ma waroon a dund la dund naa ko tey maa ngi nii ah, festival ba mu amee ba bi passé diib la gars yi andi woon ak man daanaka man maa yëg wàcc def première partie bi diib ñëw ferme ko ab ci mu jeex xam nga kon donc nit ki loolu damay naan dans la vie à chaque fois nit danga ngaa war a gëm sa bopp. danga ngaa war a xam sa bopp xam ki nga doon gëm sa bopp nag xam ne bis boo liggéeyee rek yàlla suñ borom du seetaan sa ñàkk di wadd xam nga voilà noonu la demee quoi. am di di la jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo vraiment ça a été un plaisir waxtaan ak yow ci lu bëri euh, euh, de la wax tamit euh, félicitations et bonne continuation ci projet yi nga xamante ne nii yaa nga fa trophée yi nag moom keroog Mbour Elite Awards ne woon naa la su ma ñëwee dinaa yóbbu bu ma neex mais xam naa damay bàyyi ba déwén rek incha allah bëgg a jëlaat comme ça ma jël benn. déwén moom maa ngi ñaan sax yàlla mu am meilleur animateur ou animatrice nga jël ko yow. que liggéey nga ko biir Mbour xam nga. mu am aussi meilleur cadreur meilleur caméraman Pathé jël ko ndax paate aussi ndaanaan la moo ngi def liggéey bu am solo yaag moom yéen a ngi job macha allah yéen a ngi def liggéey bu am solo dama leen di gis ah ngeen di dem ba dakaar di jëli artistes yi mag yi nekk foofu kon donc vraiment sapo félicitation di remercier waa Warang yëpp ndax guddeeg ba suba subaak ngoon ñoo ngi sama ginnaaw di remercier waa département de Mbour. di remercier waa commune bu Malicounda di remercier le maire Maguette seen bu baax a baax a baax a baax li ko ñaanal bu baax ah di remercier képp kuy am di fan fans Moustapha rek am di Moustapha maa ngi lay big di la remercier bu baax a baax a baax di big di remercier sama papa tubaab bi nekk fii Benoît douceur d'Afrique voilà Benoît Libérique maa ngi koy remercier bu baax kenn saa yow itam di la remercier bu baax a baax a baax merci encore une fois. alors gars yi gis ngeen ni lañ leen indiloon tey ci émission hip hop 221 bien sûr avec votre chroniqueuse de luxe Kenza 221 ñu ñëwoon fi nga xamante ni moo Warang. warang gis ngeen Amdy Moustapha était l'invité du jour te waxtaan nañu moom ci lu sa carrière ses projets à venir et euh, xam ngeen li ngeen xam ni moom ngeen bëggoon a xam ci euh, nan la def ba gagné li nga euh, trophée meilleur artiste chanteur bu waa Elite Awards organisé donc on vous donne rendez-vous très bientôt di leen jaajëfal bu baax baax c'était votre animatrice de luxe bien sur la grande chroniqueuse Big pat mon nekkoon ci réalisation bi Madino Sano Junior I see you love you all guys ah, am à la prochaine inshallah n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker bye bye.